asalaamaaleykum mbokki internet yi safoo Sénégal TV yéen a ngi ci seen émission revue de presse euh, asalaamaaleykum Ndeye Fatou. asalaamaaleykum Linguère. tey nag dañuy daal di tàmbale suñu revue de presse bi ak le bi daal di xamal nii ci yoonu Touba bi am na ay accident ndaxte nee nag accident yooyu am na fukki nit ñaar fukki nit ak benn ñaar fukki nit ak ñett yoo xam te ne daal di nañ ciy ñàkk seen i bakkan loolu la le populaire daal di xëtal ci xëtam bu njëkk li nga. waaw L'Obs moom tam daal di xëtam benn accident bu am entre benn minibus ak benn minicar ñu daal di taxaw daal di mbëkkante ba tax na fukki nit ak juróom-ñeent ñàkk nañ ci seen bakkan. waaye li gën a doy waar sax moom laa la populaire daal dinay dem ba xamul ni ñu kat benn xale boo xam te ni nii juróomi at la am ab sareet daal dina koy mbëkk bam mu daal si ñàkk ba kanam. waaw ñu waxaat toujours ak euh, l' observateur ni ci yoonu Touba bi 26 personnes aussi ñàkk nañ ci seen bakken. Mhm. waaye nag Touba bii ñu génn doonoon 118e euh, édition nekkul woon ay malheur rek ndaxte amoon na lu ci ay neex ndaxte ñi nga xamante ni nii ñooy cantaaku nii li ngeer daal dinañuy defati jëfin ju rek. waaw comme ni ko seen chef bi daan defee ki ñuy wax Idrissa Samb nga xamante ni comme moom moo daan def chaque jour chaque màggal mu daal di def 1000 euh, nag. tey rayati na mille mag nag ñoom nag dafa mel ni euh, li nga xam te nii seen seef bi muy euh, Cheikh Béthio ni mu fi nekkul daf leen déranger wul dara ndaxte Cheikh Samb moomu nga daan sa Samb mi nga wax nii daal di nay joxe mille mag nag loolu soo xoolee l'observateur ñu ngi ko fay daal di fesal ci fes bu njëkk ba. soow si Touba googu euh, l' observateur daal dinay def tamit ci xëtam bu njëkk xam ni at euh, lundi bii ñu génn Macky Sall daal dinay def discours am boobu mu daal di tàmmal di ko def moom nag discours bi daal dina ci indi rupture bu bëri ndaxte kat 15 minutes la daal di wax ak population bi 15 minutes la defati ay diggéem ak yi nga xam ni loolu la ñaan loolu la fas yéene def ci année bi moo taxit sax suñu waa mbokk l' observateur yi daal di dem ba ni sax Macky Sall kat adressé bi euh, discours bi mu def def ci daal di jël risque yu bëri nag discours risque la li ndax euh, Youssou Diallo ko xam Youssou jàlloo xam ni moo nekkoon ex conseiller ministre de euh, ne Ndiaye kooku nag nee na euh, chiffres yi nga xamante ni Macky Sall moom la joxe du noonu du joxewul ay chiffres yu leer ay chiffres yu foo la joxe. looloo tax le quotidien daal di xamal ni Macky Sall kat discours boobu lu lëndëm rek ak ay promesses daal la fi daal di wax. waaw su ko defee nit ñi tamit ca place de l' indépendance nañu xaalis bu bëri ci ay pétard. ndax comme ni ko ta ni ko dëkk bi di tàmm di defee ñii buñ demee Touba ñii dem fële nit ñi nekkoon Sénégal ñu xalaat ni nag Sénégal mooy loo xamante ni c'est un pays laïque nit ku nekk ak sa gëm-gëm ba tax na place de l'indépendance euh, nit ñi ñu ngi fa woon te bëri woon na nit ba pare pétard yi ñu ngi doon naax saay foofu. Cheikh Mbaw di président wu COSIDEP daan lay xam ni kat ren ji école bi maanaam instituteur yi ak élèves yi amatuñu droit dundal li nga xam ne ni loolu population bi dundoon daaw maanaam ay grève ak neneen lu ci mel nee nañ ren ji école école bi amatuñu droit def ko li nga waaw bu ñu fàttalikoo 31 euh, décembre bi passé foofu ñuy wax Abidjan juróom benn fukki nit ñàkk nañ seen bakken bi ñu taalee ay pétard ba pare ñuy ñibbisi buuxante bi ak yooyu ba tax na juróom benn fukki nit ñaq nañ seen bakken foofu ci Abidjan. damaa xam ni kat seetaani pétard rek est-ce que jar na yooyu. Ah. man de dooma dem kon bu nekkee boo fa demee dee de man maay ma toog sama kër. moo tax it noonu la ñuy daal di demee ci stade mu daal ñuy waxal li nga xam ni moom la génnee tey ci sport daan nañuy xamle nag parmi dix dix euh, millions daan nañuy xamal fukki euh, gaynde njaay yi nga xamante ni nii ñoom la ñu gën a fay euh, li nga ah man de ba ma xoolee gis dix gaynde njaay yi gis naa ci sama joueur papa sama joueur yaay sunu joueur koñ. Mm. sunu joueur ñëpp. ñu koy wax Papis Demba Cissé. ak Demba Ba gis naa Isiar gis naa Mamadou Gisna gis naa Mamadou Niang ci loolu ñu ngi xam ne sax naan Papis Demba Cissé moom ñu ngi koy fay 2 milliards moom mu ngi am 2 milliards par at par at ki nga xam ne mooy Mamadou Niang mu ngi am 2 milliards euh, Mousta euh, Mohamed Dramé Mohamed Diame mu ngi am mu ngi am 1 milliard 1,7 milliard Demba Ba mu ngi am 1,8 milliard ah li ngeen ni seen milliards yi bari na kat ki nga bari na trop ah, Issa Yar Diop mu ngi am 2 milliards et quelques vraiment mm-hmm. ñoom nga xam ne bokk nañ ci les 10 millions yi nga xam ne ñoom la ñu gën a fay ci ci ci ci football bi daal ci milieu football du pays xam nga ni loolu jar na dem. depuis jar na dugal sa doom école de foot de. waaw moo tax nag tamit ñu xamle nag nag ci choix bi nga xam te ni nii am nañ ko ci wàllu entraîneur yi ndax ñu ngi naan kat Aliou Cissé dañ ko xool di ko xool ku dëkkul Sénégal bu ñu koy xool comme coach maanaam entraîneur mel ni daal dëkkul senegal loolu waaw parce que xatar gi mu àndal la. ku xam Aliou Cissé xam ni moom xatar la mës di demee ba tax na yéenekaay bi mu ngi koy xool daal comme koo xamante ni daal ab tubaab la nag euh, sénégalais la. voilà moo tax tam ba tey stade di xam le ni tamit euh, Demba ba moom ba léegi demagul si ndax ay affaire divergence xaalis moom mu ngi waxtaan ci kii bi daal xam naa ne moo ko teree dem Chelsea daal moom. tamit ñu xam ne tamit Ligue Pro ah démarrage saison le 12 janvier lañ koy dañ koy daal di démarrage. kon day fàttu ñu jeexale ci fii fait d'hiver yi parce que fait d'hiver yi tey xëtam bu njëkk bu l'observateur mu ngi wane l'homme au scooter nit ki daal moom dafay ànd ak euh, benn nit bu muy supporter di dox ci tali bi ko yor sa sac mu këf ko. di def na ko su dul noonu ba tax na sunu police bi defati na mëninam jàpp nañ leen ñi nga xamante ni ñooy sàcc di def lépp yàlla def na ñu teg leen loxo. dafa mel ni sàcc boobu sax du ci borom scooter yi rek ndax si l'observateur ba tey ñu ngi xamal ni benn taximan boo xam ni daal moom day daal di jël ay clients yi rek di leen di sàcc di créer daal affaire ba nga xam ne dañ fay bàyyi seen bagage ñu koy sàcc donc police bi tam daal di dafa di seet mënin dafa mel ni suñu waaye tax der ñoom dañoo xarañ torop ci 2013 bi ñu dugg waaw ñii nag yàgg nañoo xarañ nag wante 2013 bi xam naa ni seen i mënin dañ koy gën a yokk. si noonu rek lañ leen di tàggoo tey jii di leen jox rendez-vous très prochainement nii rek lay demee ci Sénégal TV revue de presse bi man dinaa ñëw yenn saa yi yenn saa yi li ngeen dina dikk. waaw am na instant yoo xam ne il faut ñu may leen duo bi duo bi nag xam naa ne ay mercredi yooyu wala fin de semaine pourquoi pas. incha allah nii rek lañ koy defee ci Sénégal ma di leen jox daje cher internet suba incha allah.